ànd ak wér gu yaram waaye tamit di nuyu képp koo xam ne yaa ngi waajal ziara annuel bu gin gineew foofu nga xam ne le 18 euh, bi day foofu na ci gin gineew lay amee moom ci teewaayu Serigne Cheikh Ibrahima Khalil Sarr ziar nañ ko ziar wër di wax nag euh, waa salon Ngilane coiffure ma Anta Ngilane ñu ngi koy nuyu euh, ma Anta foofu Ngilane ñu ngi koy nuyu ak Mami Ndiaye ñoom Dumbelo Rama Gakko faatu Niang Tata Khoudia ak Ngilane famille waa mag ak Maguette Gueye ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di nuyu di am mbégte contentement seen dédicace jot nañ ko depuis régie bi nuyu nañ nag bu baax euh, euh, waa Saint-Louis waa réseau ba ñoom El Hadji Ngagne Ahmed euh, El Hadji Ngagne ñu ngi koy nuyu ñoom Ahmed Diop ñoom Taf Ñaa ñoom Baye moor ak Gistaw ñoom Mori Faye nuyu nañ tamit Fara mbay ak Pape mbay Maguette Fall Pape Fall ñu ngi koy nuyu ak ki nga xam ne nag moom mooy Mbaye Fall sans oublier Talla Nguer ak Matama di nuyu tamit Pape Diop ak Pape Diop di Pape Diop Paal euh, di Chéri Mbayang ak waa kër euh, Mala euh, Mala xëri yëpp ñoom ñëpp nag ak Bas sans oublier Instant Diagne ñoom Modou Dione depuis Paal. bu euh, Paal bu Alaaji Rawaan Ngom kon nag nuyu leen Pape Diop dëkk ca Paal chéri euh, Mbayang ak euh, waa këram yëpp ñu ngi am mbégte ak contentement ci moom di nuyu tamit nday Fatou Mbeng depuis Mauritanie ak ki nga xam ne mooy Adramé Mbuub ak Mama Mbeng ñoom Cheikh Ndiaye borom Ndar Gécc Alassane Niang chéri Nogoy di nuyu tamit Baye Tama bu ndaw ak Maodo Gueye chéri Awa Fall depuis Mauritanie sans oublier Pape Bara doomu Ndayu Madiagne ak Ajaratu Soxna Seck yaayu Go Fall de la part de Go Fall bébé Mame nañ ko photographe jury la woon koo koy bàyyi Mouhamed ñu koy nuyu di photographe du troisième millénaire tey nag costume la fi ñëwee boo ko séenee nag da yaakaar nag ku jóge ci conseil des ministres ndeketee fa mu jóge mooy conseil des photographes ñu am mbégte ak contentement di nuyu tamit bu baax euh, Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq soxna ma Ami Mbacké dit Ami la Dior nuyu nañ ko ak Jaaji Tall ñoom Mouhamed Niang Alaaji Fallou mbay ñoom Maodo Diop ak soxna Faat Bintou Pouy ñoom ñëpp ziar na leen di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne mooy sama xarit nekk foofu nag ñu naan ko Euh, suñu waa ji nekk foofu ca 2S TV di euh, suñu xarit euh, Tunkara nekk ca Sénégal jëm kanam yàlla ko yàlla defal jàmm ndax nit ku yàlla baaxal la def ñuy fàttaliku ci biir émission am nag di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram waaye di am mbégte contentement ci ki nga xam ne mooy Serigne Hamza Mbacké mi nga xam ne nag dafa dëppee bésam bii ki nga xam ne mooy Mohamed Victor ñu koy ziar moom Mohamed Victor ci cant boobu nga xam ne mooy cant maam Thierno bi war a am le 9 mai incha danañ la suñu xarit nag euh, ñuy am mbégte ak contentement bu mag euh, ci Ndeye Fatou Seck yaayu Baye Thiandoum ca yéeni géej ñoom Modou Seck sa ses femmes euh, Ndeye Coro Seck nuyu nañ ko Aïda Fall ak Fat Bintou Seck yaay Awa Diop taalibe Cheikh ak Modou sekk ñoom ñëpp ña nga ca Tëngéej mu nekk mbégte ak contentement bu mag ci képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan wala ñuy déglu ci Télé Futurs Médias mbokk nag ni ñu def moom mooy dem seeti maître Ablaye Wade soog a ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy tëj mbir mi mooy Macky sàll ak ni mu waxee ne ceebu Sénégal na tas ci biir réew mi moo ko gënal ceebu waalo kese ñu koy tudd kon Ablaye Wade ca jàkkaarloo doom ja ca nañu jëm pour leeral askan bi lan la Ablaye Wade jëlee ca Karim Wade. man góor gi yaa bëgg Sénégal jërëjëf démb laay xam ne gëree laa jur démb laay xam ne ab gëree laa jur juruma yambar ndekete karimay gëree karim karimay gëree démb démb dama na ko karim ndax amoo lu la manqué mu ne ma bàyyi boo tëddee nalawal karim ndax wéetoo mu ne ma mu ne ma papa wéetu Karim lu la metti mu ne ma sant yàlla aw ma dara lu may metti maa ngi koy seetlu naan ko est-ce que sax doo bàyyi ñu ñaanal la sëriñ ñi dem ñaan pour ñu gracier la mu ne ma bàyyi loolu laay bañ a dégg ma ne ko ah mu ne ma fa jaar ba jot réew mi doon ko ñafe ca tànk yooyu lay jaar bàyyi mosoo wane ñàkk fayda te duma ko wane mu ngi koy seetlu maa koy seetlu ne ko Karim loo namm mu ne ma bu weesoo samay doom nammuma dara ma ne ko ndax fii tàngaay bi nan la demee mu ne ma bàyyi buñ ma doon dugal sax ci fuur duma ma yëg tàngaay ndax su ma xalaatee ne yaa ma jur damay gën a am jom te du ma dellu ginnaaw Karim pour ñi nga xam ne amuguñu permis pour gis ko boo ko gisee ma nga jantal macha allah ma nga jantal eh bien wàcc na kaamil jàng na alxuraan gën ko miin mu may jox ay aaya sax ti ma xamal na ci biir aaya yi ne yàlla suñu borom dana la nattu ci kaw nattu gi pour xool bés boo demee ba nekkaat ci sa bopp moom sa bopp fa nga jaaral nag moom ci nattu yi nan ngay dundeeg loolu mu génnal ma ko ci hadis bu leer di ma xamoon ci jamono yu yonent bi am na ñoo xam ne dundoon nañu lu mel nii bi leen yahud yi jàppee yàlla suñu borom dafa taxaw xool nan la ñuy def ndax seen ngëm day toog ci loolu war a dañuy fippo kon Karim tey mu may xamal sax maa ngi ma ne ma euh, boo moytul ajjuma bii mooy jiite gars yi <laughs> mu ma koy xamal ne ma papa boo moytul ajjuma yi damay jiite waa kaso bi loolu muy mbégte ci man ndax bu demee ba sama doom nar a nekk ilimaanu kaso bi kon mooy wane ne Macky Sall permettre na sama doom jàng alxuraan bu gën a baax xam diineem et puis nekk guerrier eh. ndekete Karim du tapet ndekete juruma yambar nee na ma papa ku ma ñaanal Macky Sall ma génn baalu ma law man nag dama foogoon ne sama doom dama ko doon seetlu rek parce que xam ngeen ne man politicien la dama ne ko Karim bàyyi ñu ñaanal la ndax yaa ngi fi bëgg a yaa ne ma bàyyi loolu laay bañ daa dee taxaw yuuxu ne ma papa jamais ça jamais que que personne ne demande ma ñu gracier ma waaye kon ko am doom bii looy wax am doom ju am fit xam diineem nekk guerrier nekk nandite Karim nandite la et puis li tax mu nekk nandite boo yi nga xam ne ñooy dugg foofu tafu yeeg yenn affaires yi nga xam ne day am du ñàkk ndax nattu la rek ak yenn gars yi nga xam ne bien dafa kasa naka sudul noonu nee nañu ko gayen gayen nañ ko wax <laughs> ne ko gayen bul doof boo génnee ñoo yor sa sécurité ba pare ba pare jàngal nañ ko fa sax luxus <laughs> xam nga kaso dessin tableau ay luxus li nit di xam ci kaso yëpp Karim xam na ko Karim xam na lépp léegi nand na ba pare sax li ma gën a yem da doon làkk tukulóor Macky Sall am na ah mu bokk ak chambre Haalpulaar la di dagg làkk tukulóor ba pare li ma yéem bi may dem mu ne ma papa kasu may koso koto boole koto kasu ma ñamaa ñoo <laughs> kon sama doom ma ngay jàng ca ko saba ay làkk bu génnee wax Sénégal dégg na saraxule dégg séeréer dégg Haalpulaar jàng alxuraan mim nit ñi xam na ñuy tafoo xam naan tey dëkk ak gaa kon sama doom tey dama koy pegal ku am doom bi ku jur lu mel ni nga xam ne du tapet du yambar waaye bii doom ku ko am loo di wax bi doom saay bii doom ko yéen militant yi na xam ngeen ne mag laa te mag dootul yëngal ay poojam fekk leen ma fii wane seen mbégte ak seen contentement mane ay sa ñëw leen yéen ñëpp ñëpp ayca ayca